ci turu sëriñ Khalid Ibn Cheikh Ibrahim di leen sant bu baax yéen itam ci liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey ci màggal gi sëriñ bi yëg na ko bu baax mu ngi leen di sant di leen xamal ni fii ngeen ñëw ëtt la ci ëtt yi borom daaru moxte yi ndax sëriñ bi niñ ko xamee mooy sëriñ Khalid Ibn Cheikh Ibrahim di caatum boroom daaru moxte moom itam xam ngeen ni borom daaru moxte moo ko dalal gannaaw bi itam ay magam Cheikh Mouhamadou Awa Balla fu mu jàngee ñoo ko fa yóbbu ba mu yaroo ci keppaaruk sëriñ Mahmoudan ibnu Cheikh Ibrahim eh, di leen xamal ni nañ ko waxee Côte d'Ivoire la ko daan defee mi ngi leen di jottali ñoom itam nuyoom ak cantam ndax Serigne Ousmane moo fa ne waaye mi ngi leen di jottali cantam ak nuyoom eh, fii ngeen ñëw itam atu borom Daaru Moxti la borom Daaru Moxti itam boo ko waxee da wax ni mooy Serigne Touba rek ndax sëriñ bi bi xamee ni day liggéeyali boromam daa defar jëmm joo xam ni day léppam bàyyi ko fi. ngir lan bu demee liggéey ba mu eh, fa mu nekk di fa defar waaye itam am ku mën a nekk fii di ko defaral looloo waral bi sëriñ bi ñëwee wax ni li nga wax léegi ndax bu borom daaru Muxti demoon moom sëriñ bi dana mën a taxawee liggéey bi ñu xamal la ci ni eh, mbuumu warga mi sëriñ bi doon bàyyi woon ca baraada ba ba mu ñëwee da ko fa fekkaat kon fekkaat na ko fa eh, yëmut ci loolu waaye tubaab bi ci seen bopp ñoo seere ni njuumte liñ def mooy liñ bàyyi sëriñ bi muy bind ak liñ bàyyi borom daaru Moti. ndax laataa sëriñ bee ñëw kaamilu Cheikh Mouhamadou Moustapha fekk na ko fa. Euh, njaboot gi fi nekkoon itam mokkal nañ. mag ñi dolleeku na. Euh, taal ba gën naa yaatu. kon bis bi bisum mbégte la bisub sant la. waaye fii nag niñ koy defee mooy jàng alxuraan jàng xasida bernde ànd koog mbokki taalibe yi. ñu ciy def itam dañ koy def da koy def ci ndigalul Serigne Bassirou mi nga xam ni mooy Cheikh Ibrahim di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te may ko wér lii daal noonu lañ koy taxawee mbokki taalibe yi jógee barab yi wuute ñëpp a ngi fi kenn ku ci ne itam la la war nga taxawee ko taxawee ko nga ko noona kon loolu mooy bisu màggal gi jàng alxuraan la xasida ak tudd yàlla ndax borom daaru moxti loolu rek moo doonoon yitteem fii mu nekkoon ci penc mi nam daan yaree mag ñi eh, yendoo liggéey di jàng alxuraan bu guddee ba ñu ba nga xam ne eh, guddi na ñuy tudd yàlla di ko si sikar di sikar kon noonu la borom Daaru Muxti doon dundee loole itam moom la sëriñ bi di wéy di doxalee noona mbooleem njaboot gi fi nekk ak ñi ci ànd ci loolu rek la leen yar mooy jàng ak jaamu yàlla ak liggéey loole itam lay digle képp ko aju ci moom mooy jaamu yàlla liggéey téye sa bopp nga xam ne kon ñi ak moom ñëpp xam nañ loolu kenn ku ci ne rek la la war ca nga nekk mooy jaamu yàlla ak liggéey kon barab bii ñu nekk barabu jaamu yàlla la barabu liggéey la barabu sàmm sa bopp la ci loo xam ne sunu borom diglewu ko kon daal keppaar gi ngeen ñëw mooy keppaaruk borom Daaru Moxti di keppaaruk Serigne Touba eh, loolu daal xëy na mënees na ko jottali waaye daal Serigne bi daal sant na mboolem ñi nga xam ni teew nañ fi jaarale ko ci yéen ñii ak mboolem ñi nga xam ni ñi ngi fi ci taalibe ak ay soppe ndax Serigne bi moom xàmmeewut taalibeem ak i soppeem mm-hmm. Euh, ñëpp rek ak njabootam la ay doomam lañ loolu la leen jàppee kon loolu daal mënees na koo jotali ci turu sëriñ bi.